أدار يا الله صلي بقاء بفيق يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له asalaamaaleykum mbokk internetu Dakar Buzz ñu leen di nuyu di leen jëfal si ànd bi kóolute gi tey nag ku gis bërëb bu sell bii ñu nekk xam ne fii mooy Masalikul Jinaan mooy jumaa gi ñu tabax fii si Dakar nekk rek jumaa ju rafet warkaala macha allah tabax ko si anam gu mucc ayib ñu war koy inauguré nag le 27 loolu doon tànk Dakar Buzz tey ñu ñoo doxantu fi eh, ngir rek waxtaan na lek ñu sës si mbir mi ñuy gën ñoo expliquer si anam gu ñu ko tabaxee. budget bi waaye it tamit euh, lan lañ la ñuy xaarandi si jour le 27 boobee ñu koy inauguré ak tamit naka lañ koy waajalee duñ def lu dul jàll si biir waxtaan ak ñu sës si ñoom ngir ñu gën see indi ay leeral. waaw man la Abdou Khadre Fall di permanant ci juma Massalikul Jinaan nekk fii di jàppale El Hadj yu Faye ci liggéeyu coordination travaux Massalik. waaw. gis ne jumaa ji tabax nañ ko ba pare mais fi ñu ko tabax dex la woon la ñu wax est-ce que mën nga ñëw dikkaatal si yan anam ngeen ko tabaxee. waaw comme comme ni ko waxee fii nag moom dex la woon donc euh, ci taarix même ñun bi ñuy doog a nekk tout tànk sax fii daanaka lañ jàngee fii ndax ndox ndox bu bëri moo fi ne woon ba nga xamante ne effectivement compliqué woon na lool lool lool lool pour tabax ko mais. Euh, dañu jëloon après un bureau d'étude boo xamante ne on a fait des études du sol ñu jël fi vraiment échantillon yóbbu ko en France ñu étudier ko bi ñu ñëwee dañu gisoon ne qualité sol bi baaxul donc euh, moo taxoon li ñu njëkkoon def mooy tonni suuf bi donc suuf bi newoon fii yëpp dañ ko jël tuuri ko et ñu jënd suuf suuf bu bees ñëw lal ko si biir jumaa ji compacté ko beneen phase bi mooy il fallait pour taaw jumaa ji ñu euh, def fi euh, lu ñu tuddee ay micropieux donc on a des micropieux yoo xamante ne dem nañ ba vingt six mètres sous terre ñooñu ñooy taawu taawu jumaa ji donc colonne bu ngeen gis fii rek am na benn micropieux bu féetee suuf téye ko voilà parce que euh, ni ndox bi ak suuf bi parce que fii ay ay ay mécaniciens ñoo fi newoon et puis également la communauté Moor au début fii lañ ne woon doon tane un peu seen euh, kii der yi et produit chimique boobu dafa dem ba yàq suuf si daal ba xam suuf si loo fi defoon tamit soit day day day rës wala mu am ay fissure ak yooyu quoi waaw loolu daal moo ñu permettre vraiment ñu mën a commencer euh, effectivement liggéeyu jumaa ji waaw. puisque ndox du bàyyi yoonam. def ngeen ay micropieux ndax duñ dem ba jëmmi jamono mi indil leen ay problème non non non euh, ci côté boobu déjà micropieux yi dafa dem ba tegu ci suuf benn fu foo xamante daanaka doj lay ne doj nga xamante ne day day taaw jumaa bi maintenant pour li nga xamante ne mooy ndox bi dafa dafa am di ñu dafa am lu ñu lal loo xamante ne ci suuf muy du ciment marin boo xamante ne Euh, du du du am relevé relevé d'eau xam nga ndax comme ni nga ko waxee fii au début boo gasee à moins de cinquante centimètres da nga doon am ndox waaw mais mais mais mais technique boobu moo ñu permettre comme vous avez pu le constater euh, amul même bu tawee ndox bi day dem c'est-à-dire bu doon bu doon bu doon ndox boobu mi ngi mi ngi am effet bu muy jouer ci jumaa ji ndox bi du dem voilà. comme ni ko sëñ Mbacke yu waxee. donc euh, budget bi pour l'instant on est à un peu plus de vingt milliards mais bi mu koy wax ak léegi on a vu que effectivement am na yeneen travaux yu si dolleeku donc xam naa ne après moom c'est la voie autorisée bu ñu demee ba yi yëpp passé incha allah xam naa dina mën a vraiment wax nag quantifier euh, li nga xamante ne mais daal lu ñu mën a jàpp mooy jumaa ji moom plus de vingt milliards dem na bon les les les sources financières mooy mooy mooy ni ni yoon wi di doxee rek yoon wi surtout bu fekkee ndigal la loo xamante ne dafa jóge ci sëñ bi sëñ bi moo ciy ne lu mu am def ci yeneen taalibe yi ñëw ku ne donc euh, daayira yeeg fédération yeeg kër cheikh yeeg ku ne rek yéen a ngi dégg chaque fois nit jëkke ne cent millions yóbbul sëñ bi telle famille ah et puis également euh, jëwrin am aussi une mooy defaroon daajoon ay kees yóbbu ko 313 kees daajoon nañ ko yóbbu ko au niveau des marché parce que gisoon nañ ne parfois da gis nit bu paas ndeysaan jóge fu sori ñëw ba fii joxe téeméer wala joxe mille francs léegi jëwriñ ne woon vraiment pour faciliter leen la tâche nañu ko nañu nañu leen defal ay kees yoo xamante ne soit ci marché yi lay nekk wala ci daayira yi nga xamante ne duñu soxla euh, déplacé wu loolu rek kees yi rek presque euh, bi ñu defee le point nee na on tourne autour de un milliard cinq cent millions yoo xamee ne ci kees yooyu nga xam ne téeméer rek ñaar fukk mille francs yi ci nit yi di def moo andi moo andi loolu waaw ci taarix déjà ñëw ñëw gis sëñ bi ñëw fii rek moo jëmale ndax ni ko sëñ mun Mountakha waxe woon sëñ bi dafa daj fii lu metti moo tax sax murid généralement <laughs> du ñu bëgg di ci wax ba nga xamante ne sëñ bi bi mu fi ñëwee la boppam sëñ Muntaxa moom nee na naqar bu suufu ndakaar amoon bi fi sëñ bi ñëwee ci coono yu ñu tegoon sëñ bi suufu ndakaaru am na mbég bu ni toll bu ñu jëlee jumaa ju toll nii defal ko fi sëñ bi defe naa ne loolu mooy mooy résumé lépp ci ci ci ci baatin ak coono ak également may goo xamante ne yàlla defal na ko sëñ Touba. ba xam mën nga ñoo détailler pièces yoo xam ne moom la jumaa bi comporte. waaw jumaa ji euh, li ko composé mooy am nañ une grande salle de prière mooy moom moom boo duggee rek moom ngay jot boo xamante ne am na capacité de huit mille personnes am na également quatre salles annexes yoo xamante ne ñoo ñoo wër jumaa ji ndax surface bâtie jumaa ji c'est un hectare. ba nga xamante ne léegi saal yooyu daf ci am saal boo xamante ne moom la ñuy def salle de prière quotidienne ndax dañoo seetlu ne bu dul àjjuma xëy na affluence bu mag du am ba ñu war mën di tijji tout le temps euh, salle de prière bu mag bi moo tax ñu créé benn jàkka boo xamante ne mi ngi ci biir jumaa ji nga xamante ne nag fa la ñuy jullee julli juróomi benn salle bi mooy pour góor ñi beneen bi mooy soxna yi et ci weneen wàll wi ñaari saa saal yi ñaari saal yi benn saal bi également moom moo ñuy permettre ñi nga xam ne dañoo bëgg ñëw di jàng alxuraan ak di jàng xasida yi am na ñaari saal yu neen fi defal yoo xamante ne benn bi pour pour pour góor ñi la benn bi pour soxna yi la bon ci ginnaaw aussi am na deux salles deux salles yoo xam ne fa la ji soxna yi di jullee par ajuma et puis également une autre salle à l'étage parce que soxna yi ñu ngi à l'étage ak en bas sur deux grandes salles annexes qui ont une capacité chacune de 1500 femmes yoo xamante ne salle yooyu mën na ko jël on a également une régie de télé complète boo xamante ne moo ñuy permettre ñun à partir de massali ji naan mën nañ def notre propre production di ko jox télé yi nga xam ne yéen da ngeen di jël juste le signal pour mën a am les images en vidéo et en son waaw loolu daal ci gàttal moom moo nekk au niveau au niveau au niveau de de la grande mosquée Massaly waa ci wàllu invitation yi moom euh, sëñ bi ci boppam def na sax démb appel sëñ Mountakha boo xamante ne moom woo na woo na murit yëpp woo na jullit yëpp woo na vraiment frère am yëpp yene Touba nee na nag buy ñëw du bàyyi kenn Touba ndax ndax ndax nit ñi seen bopp comme ni ngeen ko gisee autorités yi ñu ngi ñëw tout le temps tout le temps parce que nit ñi seen bopp dañoo jël sax en en en charge vraiment inauguration bi ci wàllu ci wàllu extérieur bi également sommité ak organisation yu mag yu islam yëpp sëñ bi invité na leen donc invitation yi dem nañu ñoom it dinañu ñëw ci wàllu état yi également sëñ bi waxoon na le président Macky Sall pour mu inviteel ko euh, vraiment sunu dëkkandoo yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk autour de du Sénégal pour ñu invité leen ci weneen wàll wi sëñ bi comme que nekkoon na Gabon également invité nañ maire maire maire Gabon ah nga xamante ne moom it euh, wax na ne dina ñëw donc moom it dina fi nekk plus maintenant les les les familles religieuses ndax xalifa bu nekk Sénégal sëñ bi yónnee na fa délégation yu yu jox la invitation pour nga mën a ñëw assister si si si inauguration bi. foofu leer na sëñ bi kañ lañ ko mën a xaarandi. sëñ bi incha moom le 22 lay egg si Dakar. donc euh, fii lay nekk ak ñun tous les jours ba vendredi mais looloo tax chaque jour ndax nit ñi au delà ci bernde yi ndax nag yooyu yëpp dina dina dina doy mais au delà bernde yi sëñ bi dafa teniroon également ñu def fi euh, ay panel le matin def des séries de conférences yoo xamante ne day dundal xolu nit ñi ci wàllu l'islam ak ci wàllu euh, liggéey bi nga xamante ne sëñ Touba liggéeyal na ko l'islam. naka ngeen waajee inauguration bi. waaw inauguration bi bon comme julli la donc euh, nit ñi dinañ ñëw ñu xam naa ne nag loolu it sëñ bi dina ci wax ak mbokk taalibe yi ndax fii moom <laughs> ñëpp xajuñu fi te comme que dafa am ay invité yoo xamante ne parce que am na délégation yu fu ne ñu ngi ñuy woo de partout démb rek waa Gambie woo nañ ñu ah ba nga xamante ne ñoom dinañ ñëw waa Mali Côte d'Ivoire ah Euh, itali y un vol spécial buy jóge en Ita pour ñëw si manifeste fépp rek fépp rek ba nga xamante ne lu ñuy ñaan aussi mooy mbokk taalibe ànd ak dal ku mënul egg si itam la sonorisation bi ñu fi def am na doole goo xamante ne à 4 kilomètres à la ronde ku ne fa nga ne li imam bi di wax di nga ko dégg de façon très audible ba nga xamante ne daal ñu ñu ñu éviter euh, ñëpp bousculade yeeg yooyu dinañ mettre également un peu partout ay écran ah au niveau de grande Dakar ñaari Tali au niveau de des HLM Colobane ah jet ba nga xamante ne nit ñi bu ñu nekkee foofu dara du leen ubb ci ci ci ci lu ne fii waaw bon également pour ñam yi am na ay cuisine partout quartier yëpp incha allah dina am batterie de cuisine yu fa ubbi ba nga xamante ne euh, ci wàllu woowu dina jël en charge euh, nit ñi également euh, sëñ Mbacke yu dana woon aussi prison yi prison yi aussi lañu yëg bés boobu ne bésu sëñ Tuubaa la bésu ndamu lislaam la moo tax prison yu également dinañ leen jël en charge dina am ñoo xamante ne dinañ def ñam yu baax yóbbul leen ko également au niveau des hôpitaux pour ñi nga xamante ne ñi ngi ci hôpitaux yu mais surtout ñuy accompagner malade yeeg yooyu fu ne dina am ay ñam yu jóge fii dem foofu waaw bala ma laa bàyyi rek si construction gi gis nañ ne njiitu réew mi def na si ay milliards ban euh, message nga koy lancé si loolu. waaw foofu nii euh, mooy wax ji sëñ Mbacke yu wax rek je pense que c'est très clair terrain bi euh, le président Ablaye Wade moo ñu ko joxoon donc moo ñu ko joxoon vraiment moom it ñu remercier ko ci ci ci turu mbokki taalibe yëpp d'ailleurs jëwri ni mu ko waxee également Ablaye Wade kenn du ko invité. moom sunu sunu sunu magu taalibe la ba ñuy jullee moom ca kii bu njëkk ba la terrain bu njëkk ba la donc euh, mais mais néanmoins euh, sëñ bi yónnee na délégation sëñ Mbàkke yu ànd si ñu dem ba si président Ablaye Wade jox ko invitation bi président Macky Sall bi ñu bi ñu ñu nekkee dans le projet mu gis ampleur projet bi mu sentir ne lii c'est un bijou pour Dakar et pour le Sénégal war na ci def loxoom. moom it ni ngeen ko xoolee tout ce qui est route aux alentours de la de la mosquée moom moo ko def moom également moo def l'éclairage public et également moo def l'assainissement qui permet à la mosquée de ne pas être ndax bu ngeen seetloo ndox bu bëri na waaye tout autour fu ngeen dem fii du ngeen gis ndox te loolu itam euh, le président Macky Sall moo ko def donc vraiment ñu ngi koy gërëm aussi ci ci ci loolu mu def maintenant leneen li comme ni ma leen ko waxee c'est c'est la communauté murit yi moom vraiment amuñu dara amul dara lu jóge à l'extérieur wala yooyu daal y a pas d'ONG y vraiment kii murit yi daal ñoo tabax seen jumaa waa mooy sant yàlla rek sant yàlla sant sëñ taxa waaye waaye itam sant jëwrin Mbàkke Fay ndax moom moo ñu permettre ndax moom moo am ndigal ñun xëy amuñu dayo boobu bu ñu mënee am ndigal goo xamante ne day jóge ci sëñ bi rot si ñun donc bu jotee ndigal lu toll nii mu mu mu am confiance si ñun ñu ay ndaw ñu ànd ceeg moom depuis le début ba mu toll fii vraiment dama koy remercier ci loolu di ñaan vraiment bu sëñ bi ñëwee ba ñaanal ñu ba ngërëm li rot képp kuy sénégalais ak koo mënti foo mënti ne ak koo mënti doon ngërëm loolu yàlla na doon ay xéewal yu baawaan saawaan ci Sénégal gépp ak dans le monde parce que taarix wane na ne sëñ sëñ Touba saa bu joxee ndigal ba ndigal la rot ay xéewal yu yu doy waar moo ciy topp kon ñi ngi ñaan yàlla xéewal yooyu rotaat si ñun rot si mbokku taalibe yi rot si jullit yi rot si Sénégal rot si àdduna bépp et puis di leen remercier yéen tamit vraiment ci seen collaboration ak seen Pastef ndax bi ñu commencé liggéey bi ba léegi yéen ngi daw même parfois da ngeen di ñëw ñu xat mais da ngeen da ngeen di jël seen temps toog et loolu c'est important loolu day wane ne au-delà même seen liggéey wane ngeen ne ay jullit ngeen te bëgg ngeen lu baax waaw vraiment maa ngi ñaanal ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullah bismillahi fii niin yaa man lawal amru yaa man laa sharika lahu wasi wa ma lil waad li dhika yaa allah wajatuka alyawma yaa رمان منتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أزاري مراسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليم يميني وقل بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا علي وعن كرادي تدار يا الله أنظر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 إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إمات الجبار دون لقم كل انقضاء بلاسي لاخترت يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل الإداء بلاسي li اخترت يا الله كرهتني كل في كبر بلا كلاف يا متكبر تل كل يا الله يا خالق الخلق لغما أساء أبدا بالبر والسلوى رلوان يا الله يا بارع الخلق خذ لنا فدعونا سن وخن لي الأجر للجنات يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو نلمك يا الله غفرت لي كل سن بالغاد أتيت به لزاد بسكريا يا غاب يا الله غفرت لي كل سن بالغاد أتيت به لزاد بسكريا يا خضار يا الله على سباب مني عمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا فخمس ألتي فلا كسب ريايا وأبحي الله لغوت أزمان اللج يا ملو أموره وخنت لي رصايا رساخ يا الله فتات لي كل بعث بن كنت ذاتئا لأوليائك يا فتاة يا الله علمتني القيبات تعثت منتميئا أتى الأليم لاسين علمت يا الله خبرت يا قابل أسرى وانصرفت لخير نبيك الأقدار يا الله بذلك يا باسط الأمال لي بريدا فاذكر مباستي دارين يا الله بذاك يا باسط الأعمال لي بريضا فاذكر مبعثتي دارين يا الله قبلت يا قافل الأداء لي وما لو لخير نهري بقفل منك يا الله رضا رفيع دارين مرتباتي بلا انقفال بفضل منك يا الله